yor Dakar am ci lu bu rëy. Eh, eh, Mbaye Diop bàyyi li ngay def. mais Mbaye Diop bëri na problème ah. Mbaye Diop mii ko réew la. guerrier sa sa turandoo Mbaye. sa turandoo naanaan. guerrier la xoola kay de. Ah, génne na ko puus na ko génne ko saako yi. sonn na non sonn na buur sonn na kii bu fi yàmb la yemoon sax mu waaye xool na ay supporter am ne ne sax bakkan laa ci teg leer man tey baaraam xool ko yow xeex ba eh, mi saay la arbitre atte na avertissement lan la Keita def dëgg la dëgg waa xam nga boo ko miinul daf lay gêné. daf lay gêné déggal salsa bi loolu pëccang la da baax. waaye xale bee mën a waay waay. Mbaye Diop a ngi dóor Mbaye Diop a mu ngi rokkos sox. Eh, Keita Kara mii ay bokkam nañu wax. xoolal xoolal xale bi ah! eh, eh, taxawal bëreel bëreel daanu nga. daanu amul Mbaye Diop daan daan na ko xoolal Keita Kara mii waaw waaw ay bokkam nañu wax ah déedéet déedéet. Eh, eh, taxawal bëreel bëreel daanu nga. daanu amul Mbaye Diop daan.